ah mais boulangerie yi grand bu ñu waxee loolu noonu su fekkee ñoom ci xalaat def nañ seen xayma xool xam na ñoom buñ jëndee farine buñ ko jaayee ci li gouvernement wàññi duñ si génn kon c'est pas la peine ñu koy wàññi parce que gouvernement bi tam mënu leen tegal loo xam ne ñoom ñooy dem jëndi pour ñëw defar jaayaat léegi nit ki ci loo ci li ngay jaayaat war nga ci mën a am bénéfice laa xalaat ci gàttal mais nguur gi bu ñëwee rek tënk teg te ñoom waxtaanuñu ak ñoom mbir mi du sotti grand nañ waxante dëgg gouvernement moo war a xoolaat seen bopp ñoom seen bopp waxul may wax na noppi moom foofa la bokk man bokkuma fa mais ñoom ak nu mu munti demee yi ñu wàññi yëpp d'accord naa mais si fariñ bi moom ku ne xam na ni mu demee wax dëgg yàlla ak yonent bi suñ ci tegee métit tamit après ñun ñooy sonn rek askan bi loolu laa am lu ma ci wax wax dëgg yàlla. tu fekkee loolu am na woowoon nañ leen waxtaan ak ñoom boulangerie yi ñu trouvé solution ñu d'accord kon tey bu ñu demee ba def bu ñu demee ba wàññi ko boulanger yi ñoom buñ ko nangoo kon ñoom ñoo nekkul si dëgg wax dëgg yàlla bu fekkoon woon nañ leen toog waxtaane ko ak ñoom ñu d'accord ñu xëy tey wàññi ko ñu ne duñu ko wàññi yet wi na dal kon nguur gi na yore yet dal ci kaw boulangerie yi su fekkee waxtaane nañ ko ba pare ñu xëy na dañuy wàññi ñoom ñu ñu arrière nguur gi na na yet wi dal subventionné nañ ko su fekkee subventionné nañ ko kon boulangerie yi ñoo nekkul ci dëgg wax dëgg yàlla ñiy defar mburu bi ñoo newul ci dëgg garant bu dee subvention am na ci rek yow kon réduction war na am non su fekkee noonu la demee ñoom am nañ raison pour bañ lool parce que d' après man bu ma njëkkee dégg cent soixante la dégg kon exemple quinze francs ñett dërëm lañ ci wàññi woon léegi tey ñu xëy ne juróomi dërëm lañ ci wàññi euh, maanaam wàññi bi quoi juróomi dërëm lañ ci wàññi léegi bu ñu ci wàññee juróomi dërëm kilo mburu bi di jaar cent cinquante boulangerie bu ñu defee seen xayma arrangé wu leen ñoom su fekkente ne li nga xam ne gouvernement subventionné na ko mëte wut ñoom am nañ droit bañ tamit grand wax dëgg yàlla parce que nit tamit doo liggéey pour perte yow li ngay liggéey ni buñ la fay lu la arrangé di nga xëy ah doo xëy kii yore caméra buñ ko fay lu ko arrangé do xëy nañ waxante dëgg boulangerie la àndal de bul fekkee ñoo ne si dëgg gouvernement bi bu fekkee day def subvention na jot fépp loxo na jot ginnaaw fépp mais joto bu loxo bu jotul ginnaaw fépp ñi ci des am nañ droit raison grand dëgg rek la yàlla bëgg journaliste nañ waxante dëgg waaw xam nga duñu maanaam foofu tey damay wax ne boulangerie ñoo war a maslaa parce que nguur moo yor lépp mooy borom doole parce que tey jii ñoom suñ maslaawut bu nguur riposté day métti si ñoom parce que mun nañ leen teg loo xam ne après dina métti si ñoom dina ci am ñoo xam ne sax dinañ leen tënk duñ liggéey ñoom bu maslaa amee ñoom ñoo war a maslaa parce que nguur mu xeer la rek boo dalee si kawam gaañu bu dalee sa kaw nga gaañu noonu la demee ñoom ñoo am pour négocier maslaa parce que ñoom mun nañ teg tey danañ wàññi juróomi dërëm suba ñu xëyaat yokk non ci ñun lay métti rek grand loolu moom foo ko dégg dañuy delluwaat ci bañ a dugub rek wala ñu delluwaat si bañ a fariñ kese si loolu la dellu wala ñu xëy di ndekkee cere point wax ji loolu la parce que boulangerie yi mënuñ leen tegal loo xam ne tamit nguur su fekkente ne nguur teg na loo xam ne tegal na boulangerie yi lu concret ne lim def na subventionné na ko loo xam ne lu nekk la jot fépp ñoom amuñ jura bañ grand mais su fekkee jotewul fépp am nañ droit bañ na grand nit doo liggéey pour perte wax dëgg yàlla nit lum dee dee booy liggéey war nga gañe benn ñaar dërëm wala benn dërëm. même bu mënul jote fépp bu mënul jote fépp ñu def li nga xam ne maanaam si xayma ñu xool li nga xam ne moo ëpp doole parce que boo xaajee mu ñetti ñetti xaaj jéem a la jàppale ñaar ñu bàyyi benn bi sax mu tane wala noonu la war a demee bu jotul ginnaaw dëgg mu nekk ñetti xaaj jàppaleel ñaari bàyyi benn bi mu tane. man maa ngi tudd mais duñ wañu di perte waaw est-ce que su fekkee ne waxtaan nañ ko nguur bi pour ci wàññi bi te nguur bi wax leen pour ñu wàññi ko ñoom ne duñu wàññi ci perte bi moom loolu loolu laa mën comprendre parce que euh, boo xoolee li ma li ma li ma liggéey ci affaire yi dañ ne nguur bi dafa lay wàññi euh, quatre mille francs ci sac bi quatre mille francs ci sac bi ñëw ne il faut ñu wàññi six mille xam nga six mille six mille neuf cent ci sac bi donc euh, boo xoolee tamit da nga ne bugg a gagner tout ah, trop torox loolu population bi tamit pour man loolu c'est pas normal loolu ñu ngi bugg des fois état bi commerçant sénégalais des fois exagère des fois bu ne wàññi duñu duñu gaaw bu dee yokku la même seen stock bi tax bu bi sax noonu leen kon di jaay stock bi nga prix boo xam ne dañ koy yokk dañ koy yokk stock bi nga xam dañ ko war a wàññi prix ancien prix lañ war waay ko ancien prix bi ñoo dañ jégle yokk affaire bi mais bu dee wàññi la foofu lañ taxaw ne non duñ ko wàññi pourquoi mais quand même des fois na ne bu nekkee di dëgër bopp dëgër bopp état bi pour man état bi na jëlee ay responsabilités am na doole bi am na moyen am ñoom suñu nee du ñu wàññi nañ dem seen responsabilité def lu ñu war a def. duñu produit blé bi may li ma bi am na doole am na moyen ñoom suñu nee duñu produit bi état bi na jëlee ay responsabilités am day def def li mu war a def pour population bi parce que moom population moo ko fi moo fi moo fi indi ñoom suñu nee duñu produit bi.

ku fi ku bi ubbi rek nañ tey taxes yi cher encore ñu mooy fekk état moo jël responsable mais ñoom ñu boulanger yi duñ jaay seen blé bi duñu kii dañu bloqué seen blé bi nañ tey taxes yi cher mais